xanaa bu ñu leen falee nag sañ leen a càmbar loolu mooy observatoire suñu baat yiñ leen dénk moo waral ñu am sañ-sañu saytu waa yaanaa maara ko wax yow dox ak sa gox waaw fu ngeen ànd jëm ba république des citoyens fa démocratie gën a am jëm mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ak ñun ci Rewmi TV canal 108 bu TNT yéen ñi nga xam ne itam yéen a ñuy teewlu ci rajo bi 97.5 ak suñu chaîne YouTube mbokk internet yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy topp ci émission gox bi gox bi tey am ci gan muy Cheikh Gueye maire bu commune Dieuppeul Derklé nekk itam responsable politique taxawu Sénégal ñun am nañ mbégte lool monsieur le maire dalal la ci biir émission gox bi. jërëjëf Mbemba maa ngi lay nuy di la ziar di nuyu ñi ñuy seetaan yëpp. di am mbégte teew fii ndax euh, fii suñu kër la. tegi donc bu ñu fi ñëwee ñoo fi indi suñu bopp. waaye fekk fi suñu bopp yi. am na solo di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan yàlla waxtaan wi ñuy amal. yàlla na loon njëriñu réew mi rek. am na solo alors monsieur le maire li ñu lay njëkk laaj mooy commune Castor jëppal derkele fan la toll ci li nga xam ne moo jëm ci projet yi nga xam ne itam sumbal nga ko ca gox ba. waaw jërëjëf euh, maa ngi nuyu mbooleem ku dëkkee commune jëppal Derklé maa ngi di fa jaar maa nga xam ko <laughs> euh, ginnaaw bi ñuy laajee baatu askan wi ñu jox ñu ñu jox ñu ko ñu ngi def ay jéego yu mag ci commune bi <laughs> am na pàcc yu bari wax dëgg yàlla liggéey bu mucc ayib ña ngi ko fay amal <laughs> gis nga jamono yi ñu toll sax boo demee ci commune bi da gis ni commune mi ngi nekk en chantier moo xam ci secteur voirie la moo xam ci secteur santé la moo xam ci secteur éducation la moo xam ci secteur sport dans tous les domaines véritablement mm-hmm. ñi ngi def suñu kémti lay kàttan pour améliorer mm-hmm. condition de vie de population si si si bi ñu leen di mujjee gis euh, ak euh, ki nga xam ne moo di maire bu ville bu Dakar Barthélémy Dias voirie voirie yi ngeen doon nekk di euh, indi ay réhabilitation mm-hmm. ba tax na sax artu na fa moom monsieur le maire alors tey ci commune ba ndaxam am na coppite bi nga xam ne tey am na foofu waaw am na coppite bu mag euh, ñuy sant ak di gërëm ville de Dakar jaarale ko ci le maire de Dakar Barthélemy Toye ci jàppale gi mu ñu jàppal ndax mbébétu askan wi am na tali yu bari dañ ko waroon defar. <laughs> ba mu ñëwee wax dëgg yàlla jàppale nañu ñu defar tali mais bi ñu defaree tali bi ba pare am na lu ñu seetlu mooy am na tali yu ñu defaroon ba noppi projet Hann Fann bi avec société chinoise yi dañu daggaat tali bi. Hmm. pour dugal ay tuyaux. bon wax nañ ni dañuy dellu soit pour defar tali bi l'autre jour même ànd nañu ak responsable Ageroute yi pour xool taxawaay bi ak naka la ñuy defarawaati tali yi bu mu mel na mu war a mel. d'accord donc euh, loolu mooy li ci ñun mais comme wolof lu muy wax rek kuy defar da ngay mel ni kuy yàq. Mhm. je pense que projet Hann Fann bi lu am solo la. et ba koy xam sax liggéey bi yemb ba àgg bu babaa daañu gis njëriñu Hann Fann bi. d'accord. mais li jëm ci commune bi ak li nga xam ne moo jëm ci réel yi nga xam ne entamé woon nga waru tey fii rek. waaw. liggéey boobu nag dafa defoon ñu taxaw parce que xamuñu woon circuit bi ñoom fan la ñuy jaareel tuyaux yi ñu ñuy dagg ban ñu dul dagg. d'accord looloo tax am na ko ñuy defaroon ba pare sax goudron na ko yii ñu pavé woon leen ba noppi dañ ko mujj dindi di ko defaraat donc loolu tax ñu ni comme que ñii ñi ngi nekk ci liggéey. Mhm. nañ leen bàyyi ba ñu noppi ñu soog a wéyalaat liggéey bi. Mhm. liggéey bi am na ci cas fànn yoo xam ne reprendre na am na tali yoo xam te ñu ngi koy pavé di ci sant aussi di ci gërëm AGEROUTE ci jàppaleem. am na tali yoo xam ñu ngi koy pavéwaat sur fonds propre commune Dieuppeul Derklé ak les lieux de culte démb rek ci ngoon maa ngi ànd ak euh, adjoint au maire Ibrahima Ndiaye mon frère ak euh, le maire l'adjoint au maire Dakar Pathé ak société KF bi nga xam ni ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci mbirum voirie yi ak pavage. d'accord ñu demoon pour ginnaaw bi ñu jàppee ni dañu war pavé. kuuru wu jëppal bi mhm. mais dañu bëgg aussi pavé kuuru wu paroisse de martyrs de l'Ouganda bañ fa jógee ñoo nañu ci jumaawu liberté cinq bi nga xam ni dañu amoon yéene pavé que depuis lors mais yooyu yëpp jël nañ fi engagement ba war nañu lancer travaux yi dans les meilleurs délais mhm. pour que dans un délai deux mois les lieux de culte là seen pavage féete boor am na pavage bi ñuy def aussi ci jëppal boo demee aujourd'hui koñu Croix Bleue clinique Croix Bleue commencé defar Euh, les travaux. Mhm. mais foofu aussi liggéeyu chinois yi moo ñu xaw ah, parce que gis nañ ne avancé wul amul avancement mais ñu ngi leen di soññ ñoom aussi conscient nañu ci loolu et je pense que sous peu liggéey bi véritablement dina commencé. Mhm. Euh, boo demee tey jii école Amadou Ibrahima Seck ak Castor ñu ngi pavé ak di aménager cours bi mhm. pour rendre l'école plus agréable pour que les conditions de séjour ah soient les meilleures aussi bien pour le corps. enseignants que pour les élèves. <laughs> lu mel noonu lu ñu def aussi ci école Derklé 2 on a démoli les salles de classe qui étaient dans un état de vétusté avancée. oui pour reprendre. et dem R plus on a multiplier même par deux le nombre de salles de classe. mais mais ak période bi mu ñëwee est-ce que léegi ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi tàmbali nañ jàng bi walla chantier bi mi ngay woy ba tey. chantier bi mi ngi wéy ba tey mais xam nga ñun bala ñuy dugg ci mbir dañ koy jàng jàngaat ko bi demee ba xayma classe yi nga xam ne dañ leen di toj. dañu gis ni à côté y a des classes qui étaient disponibles et qui pouvaient accueillir les élèves. d'accord te du am benn incident. Mm-hmm. donc loolu tax. nu jublu ci loolu c'est vrai que liggéey bi waroon na pare depuis fin novembre mais xam nga les procédures aujourd'hui de marché au Sénégal parfois day am ay jafe-jafe hmm. mais je pense que l'entrepreneur est dans de bonnes dispositions et sous peu dans quelques semaines on va réceptionner véritablement les bâtiments de l'école Derklé 2 ci yeneen écoles yi itam ñoom fan lañ toll ak li jëm xam naa ni fourniture yi moom disponible na bu yàgg ci li nga xam ne moo jëm ci biir commune bi que am nga xam ne euh, léeg-léeg dañuy jàngi itam duñu am cahier duñu am bic est-ce que maire bi euh, sentir nañ mairie bi ci aspect bi ni mel. waaw xam nga ñun à chaque fois bu ñuy joxe fourniture dañuy envoyé ay agents responsables ñu dem ci directeur yi ñu wax leen école yi ngi waaj ubbi mais buy ubbi lan ngeen soxla comme jumtukaay ñoom ñu wax ñu lu ñu soxla ci cahier ci craie ci matériel didactique ci loolu ci loolu la ñuy basé wu pour def marché nga xam ne bu école ubbee rek dañuy joxe jumtukaay yi kenn du ñëw foofu ci commune Dieuppeul-Derklé naan joxuñu ma. fournitures. D'accord. Toutes les écoles publiques de Dieuppeul-Derklé ont été dotées en fournitures. c'est le lieu aussi de remercier et de féliciter yenn bonne volonté yi nga xam ne gis nañu action yi ñuy def en faveur de l'éducation <laughs> donc euh, loolu daal mooy li nga xam ne mën nañ ko indi ci xibaar <laughs> ci wàllu éducation au niveau de la commune de Dieuppeul waaw éducation kii tëj foofu gis nañ ni ak jafe-jafe yi léeg-léeg itam grève yi nga xam ni itam enseignants yi dañ koy faral di woote est-ce que duy indi ay perturbation ci li nga xam ne moo jëm ci njàng mi c'est important alternance. Moi, moi, je suis enseignant. Justement, oui. Et j'ai été responsable syndical. Et la lutte aussi fait partie du, des droits mm -hmm. des, des, des, syndiqués. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut nous repenser aussi les formes de lutte. Parce qu'une lutte, day am jeexital ou jafe-jafe sur le cursus scolaire ou même sur les horaires Euh, au niveau des des des apprentissages ba infortuner même les élèves ou même démobiliser leen ou démoraliser leen hmm. c'est vraiment un problème je pense qu'il faut repenser hmm. les formes de lutte par rapport ak jamono bi ñu toll pour xool hmm. véritablement comment même mener le combat. Oui. sans créer de préjudice. Mhm. aux autres. d' alors monsieur le maire wax nga ko ci li jëm ci wàllum voir yi lu am solo la mais santé itam euh, ci commune bi am na la nga xam ne tey yéen lañ ko jagleel ngeen ci mën a war a bay seen waar euh, ci wàllum paj ci commune ba fan ngeen ci toll. waaw ci mbirum santé démb rek ci waxtu wi. ñi ngi woon ci benn lël bu ndaw ak euh, le chef district de Gaspard Camara parce que commune Dieuppeul Derklé waaw mi ngi dépendre ci district centre d'accord qui est au niveau de Gaspard Camara et c'est le lieu de saluer tout le personnel de santé et particulièrement le doc chef médecin chef de district docteur mbay doon waxtaane parce que dañu gis dañu ko jàngat bi ñuy def suñu plan développement communal dañu gis ni mbooleem jigéen ñi bu ñu toll ci Euh, matu mhm. ci ëmb mucc bu ñu voilà bu ñu gisee lool dañuy def ay visite prénatale au niveau du poste de santé d'accord mais bu ñu tolloo ci mucc dañuy dem feneen gis leneen mhm. gis ñeneen donc ñu jàpp ni jot na au niveau de jëppal Derklé ñu tabax maternité mhm. tabax nañu maternité bi moom pare mais léegi dañ ko bëgg ubbi et le défi bi ma jël ñu jël ko au niveau du conseil municipal c'est d'ouvrir la maternité le vingt cinq décembre mu nekk un joyau un cadeau de Noël mhm. pour les femmes mhm. ndax euh, soulagement soulagement ñaari mbir daf ma ci dal benn bi damay dox di ñëw am benn jigéen bu toll woon ci mujj jàpp ni ma poste de santé bi am na maternité mu ñëw ba foofu foofu la doon matoo yàlla ndimbal ak taxawaayu benn délégué de quartier nga xam ne suma wayjur la suma kilifa la Adja Ndeye Kumba Wade ma di ko nuyu moom moo ko jël yóbbu ko ci clinique ak côté bi ñu jël ko en charge foofu la mucc d'accord beneen bi beneen jigéen bu toll ci mucc yaakaar ni am na maternité mu ñëw ak taxi ci biir centre bi pour ñu jël ko en charge ñoo xamal ko ni ko fii kenn du fuy wasine loolu moo tax ñu tabax maternité bi mais nag bëgguñu def ay transformation am c'est pas conforme mhm. aux normes sanitaires loolu tax ñëwoon le chef de district ak équipe ñu xayma naka la ñu mën a def pour def quelques travaux d'aménagement pour rendre structure bi conforme aux mhm. normes et ouvrir la maternité au plus tard en fin d'année. parce que li ngay wax nii itam li nga xam ne moom moo jëm ci accident mun naa ko tuddee noonu li nga xam ne amoon dafa jëppal euh, derkele ba ay nit euh, mujj si ñàkk seen bakkan mooy gaz ba nga xam ni itam créé woon na euh, problème foofu yaakaar naa ni itam bu amoon benn structure bu mag ba nga xam ne tey mi ngi ci commune ba. Hmm. dinañ doon jël li nga xam ne moo di soins yu njëkk yi. mais au-delà même de la commune pense que c'est au niveau national. je ne connais pas à ma connaissance. Hmm. benn structure de santé dédiée aux grands brûlés. problème la donc c'est un problème de, au niveau de la santé je pense que les autorités à au niveau ñu ngi ci réfléchir pour xool comment véritablement créer ce centre là c'est important mais heureusement ñu sant la ville de Dakar par l'entremise de son maire Barthélémy Toye Dias a une convention de partenariat avec une clinique privée hein qui se trouve au niveau du Maroc à Casablanca donc loolu ginnaaw bi bonbonne de gaz bi éclaté. Mhm. fukki nit ak benn am ci lakk-lakk yu métti. mu nekk lu métti ah. lool. Mhm. juróom-ñett yi jiituñu bar sax yàlla na ñu xippee aljana. amiin ñetti ñoo ci mucc ñaar ñi heureusement ak taxawaayu kër docteur yi. Mhm. faj nañ leen fii ci hôpitalu Grand Yoff bi. CTO kenn ki Idrissa Pouy Idrissa Pouy kenn ki njabootam. ak nit ñi ñoo ni sàkku pour ñu yóbbu ko bitim réew pour faj ko faj bu mucc ayib. d'accord loolu aussi maire de Dakar ñamoon fa massawu leen jaale leen waaye jëloon engagement yi ni képp ku ñu war a yóbbu bitim réew dana ko yóbbu bitim réew. Hmm. loolu tax ñu war ko sant gërëm ko ci taxawaay boobu mu am. Hmm. ndax la ma waxoon askan wi def na ko. Hmm. xale bi tey jii dem na clinique privée internationale bu Casablanca ña ngi koy faj mu ànd ak bàjjanam. mu nekk foofu et yaakaar nañu suppa dañu wér ba ñibbisiwaat ci askan mu nekk lu am solo mais loolu naka la ko askanu jëppal derkele dundee euh, fan yooyu noonu mais xanaa ak métit ak naqar euh, xam nga jëppal derkele commune bu particulière commune u jàmm la commune u salaam la kenn ku ci nekk sa morom sa mbokk la donc euh, solidarité dafa nekk lu wér moo tax bi mbir mi amee moo xam nga dëkk Derklé moo xam nga dëkk Castor moo tax xam nga dëkk Jëppal ak foo mënta dëkk ci commune bi ñëw nga marsawu askan wi jaalee askan wi indi sa ñaan wala sa barkelu ngir jàppale ñoo ñooñu nga xam ni mbir moo mën a dal même au niveau de la diaspora man li ma jot ci message ci ay appel kenn xamul nu mu toll ba bërki démb rek maa ngi jot benn bataaxal boo nga xam ne ñi nga dëkk ñi dëkk cité Asegna <laughs> ñoo ko bind di ma marsawu ngir jafe-jafe boobu am donc loolu yëpp day wane seen gëm seen ragal yàlla seen doyloo yàlla aussi <laughs> ndax euh, gëm nañu ni yàlla xarit ba lay musibaal léeg-léeg natt moom mooy màndarga julli <laughs> mais bu la yàlla tegee nattu yàlla na yàlla may xolu muñ ba nga mën koo muñaale et boo ko ñëw rek suñu borom dafa la xewal mm-hmm. donc lii mooy li nga xam ne dund nañ ko mais du ma jàll ci wax jooju sans féliciter remercier yenn association yoo xam ne particulièrement dañu singulariser seen taxawaay mm-hmm. ci jafe-jafe boobu lu mel ni les amis de Derklé l' association Soxali Cité Marine les femmes de valeur association Adja Soda Dieng jëppalkat ñoom ñëpp ah ñëw nañu ku nekk fàtte sa bopp ku nekk fàtte sa bopp la nga am nga indi ko nga joxe ko mm-hmm. nga ñëw masaw xëy na mënuñu demuwaat bakkan que dem mais ñu fekk ñuy teew di masawu nit ñi di jëf jëflante ak ñoom ah di baaxante yenn kàddu yi mën na dëfal wàññi wala mu wàññi lu bari. c'est important de loolu la ñu dund foofu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñuy sant ak di gërëm askanu jëppal Derklé. Mm-hmm. sant ak di gërëm aussi imaam jara ndax taxawaayam vraiment rafetlu nañ ko ak waa jumaa ji mm-hmm. ndax te xam nga juróom-ñetti nit. bu teyee kenn faatu bu subaa ñaar di faatu ñuy baagante diggante hôpital baag cimetière yi hmm. ku am taxawaay dig gunge foofu vraiment yeeyoo nga jaajëf ak njabootu suñu maamu maam Alaaji Malick si ñoom gis nañu seen ràññee nañu aussi seen taxawaay ndax ay wëllëre lañu hmm. ci kër googu am na solo alors monsieur le ku ne Castor wala nga ne jëppal Derklé sa xel dafay dem ci marché Castor ñu ne marché bi lu muy dugal ci koppar bari na waaye dañ ciy gis ay jafe-jafe saa su ne yow yow yaay maire bu commune bu Dieuppeul Derklé yéen itam yéen a yor en charge li nga xam ni moo jëm ci marché bi lan mooy jafe-jafe bi nga xam ne dañ koy souvent di ko wax. d'abord ma ma ma wax benn baat. Hmm. ñu bari dañuy jàpp ni li muy dugal ci koppar bari na. bariwul. déedéet. d'accord boo ko xoolee li marché bi toll. ak la mu war a indi ci koppar demewul noonu. nu mu demee. marché bi. bokk na ci marché yi nga xam ba suñu joomi tey juuti la ñuy fay. ah ñaar fukk ak ñeent fukk tey nga ñëw fay suba la doo fay donc loolu mooy situation réelle marché bi. d'accord bu ma la waxoon at bi ñaata million moo fay génn da nga naa ma mënul nekk donc mais loolu terewul ñu ngi jéem ak état bi ak ñi nga xam ne mbirum marché mooy seen taxawaay naka la ñuy def pour soppi xar kanamu marché bi. pour ñu dëkk ci wetu marché bi am affaire. mais lu nekk jéem nañ ko jële nañu ay nit yu dëkkul ci commune bi jël nañu ay nit yu dëkkul ci koñ bi jël nañu ay professionnels liggéey nañu ak uniquement pour sécuriser le marché. dara mais xam nga ñoon suñu suñu compréhension Sénégal. Mhm. mooy bépp établissement public. établissement bu résevoir ay nit day déborder rek fu nekk lay dem moo xam marché la moo xam jumaa la. moo xam stade la. rek mhm. xoolal Sénégal rek. yëpp day déborde ba fa ñu war a yem duñu ñu ko yem te ban dama bokk ci ñi nga xam ne dañu gëm ni désencombrement du régler problème. ah mais li ñu mën a def mooy opération de. je ne sais même pas comment je vais dire désencombré xam nga da ngay ñëw ak fitna. ak force de sécurité yi. mais ñuy toog ci xàll yi anarchiquement. ya oui oui mais je suis contre l'occupation anarchique. anarchique oui justement. cela ne veut pas dire que je suis favorable je suis contre l'occupation anarchique mais il faut le faire de façon intelligente aménager ay cadres yoo xam ñiy jaay fa la ñu war jaay parce que dama gëm ni une ville dafa am fonction. dafa am bërëb bu ñu war jaamu yàlla béréb bu ñu war jàngalee bërëb bu ñu war noppaloo ak bërëb bu ñu war tàggate yaram ak béréb bu ñu war a jaayee mais bu fekkee da nga yeewu fu nekk nga bëgg fa jaay buntu kër yeeg fu nekk nga bëgg fa daaj table mais boobaa ça devient de l'anarchie mais problème situation bi askanu ñi dëkkee Castor ñoom nan lañ koy dundee ñëw ba si lal sax sa buntu kër. mais lu metti la man bu ma leen di déglu wala ma dafa jaad damay mettre à à place métti na trop léeg-léeg du ñuy am sax malaat pour génn ko du ñu am jafe-jafe mbaa ñu am xew-xew bu ñu am du am jafe-jafe te ña fay lal wax dëgg yàlla ñoo am xam nañu la ñuy def jaaduwul dugg dëgg yoon mais lu nekk def nañ ko ak ñoom ñoom xeex nañ ci jóg nañu fajar lu ne def naa dem naa fa fajar lu nekk mais tooguñu ni yàcc rek. ñu ngi hmm. jéem ay pexe pour. xool lan mooy pexe bi lan mooy pexe bi pexe mooy ci ginnaaw euh, liggéey woon nañu ak. Promogem oui programme de modernisation des marché mhm. avancé woon nañ ci trop ba bindoon bataaxal sax ba def délibération au niveau du conseil municipal ba jébbal ko mhm. autorité administrative pour approbation d'accord desoon na ci nag ñu jël aujourd'hui am kayitu marché Castor mhm. am terrain bi am toutes les informations nécessaires liées au marché pour xool comment construire et réhabiliter le marché. c'est possible c'est bien possible mais du looy xam ne da ngay jóg def ko. Mhm. parce que ñun suñu niveau bëggoon nañu aménagé dem en hauteur. mais bi ñuy ko waxtaanee ñi nga xam ne seen xam-xam màcc nañ ci mbirum habitat dañu ne bu ngeen ko bàyyee nii dem en hauteur am na ci cantine yoo xam ne day jàkkaarloog salle de bain wala salon ñi nga xam ne ñoom la dëkkal donc il y a un type d'aménagement qu'il faut faire de sorte que aussi bu paree du indi benn. jeexital. ci nekkinu askan wi dëkk. commerçant yi dans tout ça ñoom euh, seen taxawaay ci marché bi itam lan la war a doon ak ñoom tey euh, lan lañ ci war a mën a jàpp tey ci li nga xam ne moo jëm ci askan wi fi ñuy toog ci biir marché bi euh, ñoom dañ leen yeggee nakar bi wala. oui oui am na ci commerçant yoo xam ne aussi. Mhm. même position la ñu nekk ak population riveraine yi. ni ñuy toggee foofu di jaay noonu. d' accord uñ ci. d' parce que ñoom dañu nekk ci place bi nga xam ne bal ngay agsi ci ñoom lu nekk leen ñuy daj pour agsi ñoom. kon mënuñu jaay am na si ñoo xam ne nag loolu moo leen arrangé. ci loolu la ñuy dundee moo tax toujours dañuy jàmmaarloo ak ñoom. Mhm. mais xam nga mbirum marché aussi ak euh, xalaat bi nit ñi am ci xaalis dafa doy waar. Euh, kilo ma tamuma kenn mais souvent da nga fa yóbbu ay éléments liggéey ba ñu war a def souvent day mujj ñu corrompre leen. corruption bi corruption bi. oui. kooku du ma du ma miim ne amul. ça existe nañu ko mais man mënu ko bañ. parce que naka ngay ñëwee yow ki nekk fii nga ne ko jógal te ki gën a jege nga wàcc ko fa mbaa buñ la nee boor wi nga du moy bañu ko def sa veut dire y a quelque chose mais loolu nag xam nga responsabilité individuelle personnelle. justement donc sa euh, ça se comprend parce que agents yi souvent li ñuy am par weer xëy na tuuti ba du mën a faj seen soxla am moo tax souvent dañuy passible à la corruption mais c'est pas raison j'essaie d'expliquer effectivement loolu lu mu doon on a tenté de le <laughs> mais comme que c'est un problème qui se pose à nous tant que nous serons là aussi nous ferons face pour mm-hmm. voir quelles sont les solutions à apporter yaa ngi koy junj sànq ne juuti ñaar fukk ak suba nga fay suba nga bañ a fay mm. est-ce que ñu mën a dem ci jéggi li ni mel justement parce que xam nga marché bi dañu defoon recensement pour wax la ñaata cantine moo fa. ñaata moo fa nekk ñaata tablier moo fi nekk mais recensement boobu yàgg na et je salue au passage le nouveau percepteur Khadim maa ngi koy wax keroon ni ko il faut ñu procéder à un nouveau recensement du marché de Castors pour xam ñaata tablier moo fa am ñaata cantine moo fa am et cetera donc liggéey la bu mucc ayib. liggéey boobu boo ko defee si ngay mën a xam effectivement marché bi ñaata la war a mën a indi ak lan la ñu war a mën a def ci marché bi ñaareel bi aussi comité gestion boo fa nekk yàgg na lool jot jaar na nag léegi ñu mën a changer comité de gestion bi. d'accord taxawaatal comité de gestion parce que am ñu nekk ci marché bi ñoo xam ne. wax dëgg yàlla seen taxawaay taxawaay bu mucc ayib la njëriñu marché bi ak ëllëgu marché bi rek moo leen ñor mais ñooñu il faut ñu responsabiliser pour ñu am taxawaay ci biir marché bi. d'accord xam nga li wolof di wax naan bu fukki di gas fukki di suul pënday bari rek mais kàmbu daal. am na si ñoo xam ne am nañu yéene am nañu pas-pas ak bëgg-bëgg ñu defaraat. Hmm. mais am na si ñoo xam boo yëkkatee rek ñu ne non du fi. d'accord. d'accord monsieur le maire ak pont bi nga xam ne ñu ngi ko ci tabax dëgg la dina indi soulagement mais indi na ay jafe ci biir commune bi quand xam nga pont bi aussi ça c'est l'état moom moo koy liggéey ah. et souvent le domaine public souvent dañuy interpeller même les maires mm-hmm. dañ waaw te yéen te <laughs> leen ci lu bari responsabilité maire dafa limité foofu mm-hmm. kooku ça relève de l'autorité administrative justement parce que man maire mënuma génne et mobiliser les forces de l'ordre il y a que l'autorité administrative qui peut le faire mm-hmm. mais par rapport à l'autopont qui est une réponse à la mobilité mm-hmm. au niveau de la commune et au niveau de Dakar ñan nekkoon ci axe boobu yëpp oui état bi daf leen indemniser woon jox leen ndàmpaay ñu dem pour ñu dem mais à ma grande surprise mm-hmm. dañu dem en temps après ñu dellu soit c'est les mêmes qui sont revenus occuper espace bi problème bi et souvent mais problème mooy dañuy daan suñu doole comme léegi bi may ñëw fii. ñu ci ah. bari loolu daan waxtaan. mécanicien yi dañu daan suñu bon mécanicien yi. alors loolu nag c' est l' état je ne dis pas que commune amu ci mais nous on essaie agents yi ñuy jël ñuy def brigade. ce n' est même pas une prérogative de la collectivité territoriale c' est pas des agents assermentés bu ñu leen gaañee mbaa ñu am jafe-jafe dem police dañ leen di téye. xawi seen sutura. loolu yëpp aussi c'est c'est c'est la responsabilité moi il m'arrive même ma romb gis ay truc di sànni wala ma wax wax joo xam ni tegginuwul damay daal sama bopp sax parce que du sama cër mais métit ak naqar moo may dal d'accord donc il faut que nit ñi aussi revenir à la raison et au sens des responsabilités xam ni am na ci yoo xam ni yaa ngi koy def mais yaa ngi teg nit ki lor àq la boo demee waxuma la sax ci autopont bi ñuy jaay mais am na clando yu nekk ci station Total bi mais station totale bi structure privée la mais ñoom lan mooy seen taxawaay ba oto yi fi ñu war a gaare ñu gaare fi ñu warul gaare ñu war a. kon du yoon du yoon. et j'ai vu aussi des forces de l'ordre yi taxaw foofu mais ñoom aussi souvent dañuy dépasser mënuñu def liggéey donc il y a un désordre réel ça il faut le le dire c'est un désordre réel et du loolu du maire bi rek. du nit ñi rek ñëpp ñoo ko war a saytu xam ni lii jaaduwul. normal mhm. ñu mën ko taxaw dindi ko. mooy li ñuy gis itam Liberté sis naam pàcc la bi nga xam ne da ngeen ko bokk ñenn ñi Grand Yoff yéen am nañ ci cër itam lan mooy solution bi pour Liberté 6 mu mën a nekkaat nu mu nekkoon. xam nga c'est c'est c'est pas un cas isolé c'est un cas d'ensemble moi je pense je le disais tout à l'heure ci mécanicien yi ma ñëw il faut que l'État central bien sûr wootee cadre de concertation de consultation large. bu amul par parlo. bu amul par parlo bi nga xam ni lenn rek moo ko soxal comment prendre en charge ces sénégalais ñi nga xam ne ñu ngi jaay ou bien ñi nga xam menuisier lañu wala ñi nga xam ne mécanicien lañu te nekk ci tali bi parce que c'est des sénégalais comme toi et moi. Mhm. qui veulent gagner leur vie mais ils ne demandent pas autre chose que ta cadre d'expression. l'État war na mën aménager ay espace yoo xam ñoom war nañ fu mën a dem daan seen doole mais dans la conscience collective des sénégal dañu yaakaar ni ki jarle mooy que ñëw ci par du jàmbur di jaay wala kii réparer mécanicien bi mooy ñëw ci buntu këru jàmbur def fa atelier mais loolu jaaduwul koo wax mun la mbedd mi mbedd buur la <laughs> mais mbedd buur la. war nañ mën a avancer ci kàddu boobu quand même il faut que ñu am ñu nekk ay nit du ñu ay bàyyi ma nit bu fekkee nit la. dëkk bi ak dëkkuwaay bi dafa am nu mu war a méngul waaye bu fekkee ni fu la neex euh, toog jaay fu la neex def atelier. Hmm. fu la neex def lu la neex. mais ça devient la alors ci biir commune bi gis nañ itam euh, fexe nga yow itam ba def ab terrain ngir ndaw ñi itam génn bañ doon génn. Hmm. ñu mën di toog di mën a tàggatu ci ay terrain alors euh, ndaxam mu ngi leen di jural dara itam rentabilité am na ci. oui c'est que. ñu sant ko yàlla parce que ay génération d'avant ñu mel ni ay doyen aan caaro yi des générations comme ça seen bébét moo doon ñu defar terrain même jëm ci yàlla Mamadou Diop qui avait clôturé le terrain seen bébét mooy loolu. d'accord donc des générations yu ñu. xalaat bu yàgg la bu yàgg la. d'accord comment ñu defar terrain man bis laa ci am jàngat bu rëy parce que ni nga may gisee ni su dans. certaines occasions dañ may woowee Maldini. Mhm. parce que j'étais un fan du Milan AC. et de Maldini da ngay football dimanche matin damay football dimanche matin. mais temps yii ñu ngi may woowee ñii di ma woowee Haaland ñii di ma woowee Bellingham ndax euh, bi yu may dugal. xarañ bi quoi. mais bis dafa jot ñu football terrain Castor madame footballé mais c'était un champ de patates coono ga ma fa daj jafe-jafe yi ma fa dund laa ni fii daal dootuma footballati boobu. tant que defaruñu terrain bi. d'accord gazonné ko man dootuma fi ñëw football si la ñun tàmbalee nag jël ay jéego taxawaay commencé que d'abord par le maire de Dakar de l'époque Khalifa Sall. Mm -hmm. ensuite avec Soham Wardini qui nous a accompagnés ba ñu véritablement commencé le travaux d'aménagement du terrain. Mm -hmm. Barthélémy Dias nag bu mu ñëwee. Mhm. si lañ ko àggale. actuellement non seulement am na gazon mais moment yi may wax ñi ngi def coulage pour taxawal. les les les les, les projecteurs. d'accord et pour la tribune yu ñu doon wax la ville de Dakar dafa def un marché pour ñu réaliser tribune donc ça va devenir un stade moderne et ñu sant ko yàlla aussi ce joyau là ce n'est ni pour moi. Mhm. ni pour les autres c'est pour la jeunesse. Mhm. ndaw ñi nañ ko jox alors bi ñu leen ko joxee nag on a dit un an nañu wut directeur de stade wut benn équipe bu koy accompagner. ñu jàngat ci at boobu naka la ñu yoree terrain bi. <laughs> parce que management la. management donc at bi yëpp pratiquement dañuy bàyyi ni ndaw yi di jouer école de football yi l' équipe de la commune entente Dexële Walidane que je salue qui se veut une équipe communale. à hmm. l'échelle de la commune donc ñooñu ñoo fa nekkoon. et récemment j'ai rencontré le directeur ma ne ko directeur comme que yëfu euh, mairie bi te man dama bëgg lu leer lépp lu ñu def ñuy leer. transparence dama lay ñaan nga dem nga gis percepteur nga waxtaan ak moom naka la ñu war a mën a yore terrain bi bu la ko waxee ñu doxe ci yooyu nga damay bañ ëllëg ñu ñëw fi. Hmm. jàmm ci loo xam ni artu woon na ci loolu la ñu nekk di ci liggéey pour xool comment véritablement rendre disponible hmm. terrain. pour les équipes qui sont de la commune même ñu nekkul ci commune bi mais mu nekk lu réglementaire lu jaadu lu aw ci yoon mais surtout ñu insister sur comment assurer l'entretien de la pelouse c'est important récemment je salue mon ami euh, Mathieu Chopin de Dakar Sacré-Cœur daf ma convier woon parce que tu sais que Dakar Sacré-Cœur dafa jumelé ak Olympique Lyonnais donc il y avait la visite de madame le ministre des sports de la France mu ñëwoon fii. Mm-hmm. ak le patron de l'Olympique lyonnais il y avait même le président de la fédération sénégalaise de football. en l'occurrence Augustin ay Maya Sinmar ma demoon fa donc la ma ci jublu woon mooy comment aujourd'hui am un partenariat avec Mathieu Chupin pour que des équipes européennes ou d'ailleurs bu ñu mënee buut si fii talent ou bien mettre ay euh, compétition non jeune. Mm-hmm. ñu jaar ci yoon woowu pour devenir demain des de grandes figures du football sénégalais. et même africain. d'accord et dans le même coup comment assurer l'entretien et le suivi pour pérenniser le gazon synthétique. c'est important alors monsieur le maire lan mooy perspective commune bu Dieuppeul Derklé li nga fi sumb ci ay projet c'est important maay jubluwaay bi fan la. jubluwaay bi gis nga au moment où je parle il y a une réunion des commissions. parce que conformément au code général des collectivités territoriales un mois avant l'examen du budget mm -hmm. il faut nga def benn séance débat d'orientation budgétaire ci la qu'on a ci loolu ngeen nekk nekk nañ ci maintenant j'avais demandé à ce que les commissions se réunissent bu ñu réuniree ba def def seen proposition def seen ay avis budgétisé ko ñu dem ci intercommission mhm. pour avoir un rapport qui va être vraiment la base mmh. pour élaborer le projet de budget. D'accord. Qu'on va soumettre. Mmh. Et ce budget qu'on va soumettre pour 2024, man ci sama gis-gis, ça va être un budget d'investissement. D'investissement au niveau. na mën a am yokkute. C'est ça, yokkute ci cadre de vie bi. Les espaces de vie et de rencontre, les jardins, les espaces de de de de, de sport, xam nga. Pour améliorer véritablement le cadre de vie pour que le citoyen de Dieuppeul-Derklé puisse être à l'aise dans sa commune puisse vivre de manière décente dans sa commune parce que bañ leen di fal da ngeen wax l'humain ngeen jiital mais ba léegi l'humain la ñu jiital parce que xam nga man damay déglu borom xam-xam yu lu bëree bëri dama dégg ci benn borom xam-xam mu ne yàlla bu mu bindee doomu aadama daf ko tagg ni ko wala xaddi karam naa bànni aadama donc ndegam yàlla moo jël nit doomu aadama teg ko fa mu ko teg astuma ak ñun bu fekkee dañu bëgg soppi dëkkuwaay soppi xar kanamu gox goxaan yi dañu war jiital doomu aadama c'est pourquoi ñun suñu politique l'humain au cœur de notre politique l'humain tout c'est l'humain parce que boo amee tali yu rafet am terrain bu rafet am jardin yu rafet te tabaxoo nit koo nga xam ne dina xam naka lay jëriñoo jumtukaay yooyu mais yàq rek lay doon donc l'humain dafa am solo d'accord formater l'humain conscientiser l'humain ba l'humain bi lay nekk ci loxo mu xam njëriñam xool na mu koy utiliser sinon da koy jox mbir arme mën na ci rey boppam sax mbaa mu gànc boppam donc l'humain est au cœur de nos problème politique. d'accord dans notre programme politique. alors c'est important alors léegi gouvernement teg na fi ay bànqaas yi nga xam ni dana jàppale ñi nga xam ne ñoo di gox ak goxaan yi sel bi mi ngi fii euh, fonds de dotation mi ngi fii mais chaque jour yéen maire yi da ngeen nan dafa tuuti dañ ko yokk. oui c'est pourquoi ça me permet justement de faire une transition et de faire un clin d'œil à mon binôme le président Khalifa Ababacar Sall que je salue. dans le programme que nous voulons élaborer qui est une coproduction looloo waral sax mottali yéene dem ci askan wi nemmeeku askan wi déglu askan wi jàngat seen jafe-jafe mais surtout laaj leen ñoom jafe-jafe yooyu lan la ñu yaakaar ne moo saafara ci loolu la ñu defaree programme ñun dañuy jàpp ni aujourd'hui ce qu'il faut il faut moderniser les collectivités territoriales comment en leur dotant des moyens conséquents ay que les fonds de dotation tout ça je ne crache pas là de concours fonds de concours je ne crache pas sel mais je pense qu'il faut aller plus loin et plus loin ça va nous permettre d'avoir des collectivités territoriales fiables et viables bi ñuy def dox mbokk yi dem j'ai été impressionné par le discours des jeunes du Walo xam nga lan la wax ndox maa ngi nii Kër Momar Sarr mu fàttali ma woyu Youssou Ndour ba mu wax naan Waalo nii la neexee mar naan marul naan ñëpp xam nañu Waalo am na ndox mais tey jii boo demee Waalo ndaw ñi ak ña dëkkee Waalo dañuy am jafe-jafe pour utiliser ndox mi ñun ñi ñun bëgguñu dugg ci gaal. bëgguñu dem fen Sénégal gii lañu ñu bëgg toog hmm. waalo gii lañu ñu bëgg toog li ñu bëgg mooy nan nu jox suuf ak ndox ñu daan suñu doole dimbali suñu ay njaboot. d'accord mais ça c'est une réponse qui m'a agréablement surpris des jeunes aussi déterminés aussi engagés et ils étaient très nombreux discours boobu la ñu tenir moo tax ñu ni ñun nañu xool bu ñu xaymaa gox-goxaat yëpp aujourd'hui ñu ngi ni budget Sénégal sept mille milliards. sept mille milliards. mais sept mille milliards Sénégalais bu nekk war na ci mën a gis boppam pas ñenn ci Sénégal mais Sénégalais yëpp boo ñëwee ci benn gox gaxaat nga def enquête cest à ni yéen lan mooy seen jafe-jafe lan ngeen bëgg lan ngeen di xaar ci état bi ñoom ñu wax lu ko wax la projet bi xayma projet bi mën nga dem ak ñoom sax ba un milliard. mais bu fekkee lu ñu war a tabax la. jarul ngay wuti di jéggaani tabax kat xale yi dëkk ca gox ba tey tabax ñu ngay jox ñu liggéey ñu tabax ñu fay leen. d'accord bu dee menuisier na ko noonu bu dee électricien na ko noonu bu dee peintre na ko noonu bu dee architecture na ko noonu bu fekkee am na ci gox bi daal ñu leen utiliser c'est-à-dire la préférence locale en ce moment. tu développes le terroir tu développes la collectivité et tu rejoins. ceux qui disent que le développement il est local il sera il n'est pas local il ne sera pas et en ce moment on aura des collectivités territoriales viables et fiables et le développement lu mën a nekk la lu mën a nekk la d'accord c'est pas un rêve pieux c'est vraiment quelque chose qui est possible et c'est ce que Khalifa Sall le Sénégal de tous les possibles c'est possible c'est important alors loolu dafa ñuy may ñu wax ci wàllum politique balaa waxtu bee jeex alors nit ki euh, samedi bi wala vendredi bi euh, gis nañ décision cour suprême bi nga xam ni daan nay annuler décision ki nga xam ne moom moo di si fay renvoyé ñaari parti fële nga xam ne moo di tribunal hors classe bu Ndakaaru alors commentaire bi ni mel ñëpp si bëri jàpp nañ ni gouvernement bi euh, wala sax ay pexe la ñuy teg ngir mën a écarter Ousmane Sonko ci élection présidentielle atum 2024 loolu mooy sa gis-gis yow. bon xam nga aussi Sénégal il faut faire la part de choses ñun ñu ci bari du ñuy wax sous le coup de l'émotion mm. ou de la passion alors que am na lu yoon wax man du may spécialiste du droit. justement mais li ma yëg mooy doxin bi yëpp c'est pour isoler Ousmane Sonko que je salue qui est mon jeune frère qui est un aussi mais les yoon wax nañu jëfe la nga xam ni moom la xel mën na nangu. kon lii xel mën ko nangu. cest li may wax ni xel mën na ko nangu cest à xel mënul nangu aussi fekk lii mooy dëgg ñu teg ko fa def lu dul dëgg. d'accord mooy la wax moo tax man la du may spécialiste de droit. Mhm. est-ce que juridiction bu Ziguinchor est au-dessus de la juridiction de Dakar loolu mënu mën ci artu si maintenant yoon dafa ni juridiction bu Dakar bi moo nekk ci kaw moo ko war a mën a àtte nañu jaar ci juridiction ku am dëgg ñu jox la dëgg mais li xel mënul nangu et depuis quelques années moo di à la veille de chaque élection hmm. ñu essayer isoler un candidat potentiel lii ñuy wax ni waxaat la rek ñun dund nañ ko en deux mille dix-neuf Khalifa ñëw nekk maire Dakar changer xar kanamu Ndakaaru au niveau national comme international ku nekk naan xalifa xalifa xalifa mbay yaa ñu doy yow lu ñu bëgg nga yor réew mi ëllëg de partout mais ñu tuñ ko dugal ko ci kasam tuumaal ko dugal ko ci kasam ci li nga xam ne dëgg du yoon mais lañ ci jubloon moo noon mu bañ a bokk ci élection yi en 2019 yaa ngi koy fàttalu xalifa mhm. bokkul ci élection yi Karim Karim Wade bokkul ci. bokkul ci élection yi mais ñiy wax tey jii yëpp bokkoon nañ ci élection donc bukki ba leen màttoon moom màtt Ousmane Sonko mais nag màtt màtt bi war nañu xool lu tax mu di ko màtt c'est pourquoi Khalifa Sall disait toujours que après Khalifa Sall il n'y aura plus de cas bu mel bu ni mel mais la mu wax nit ñi dégguñu ko c'était un appel à l'opposition pour que ñu am taxaw tem mhm. pour xeex pour approfondissement démocratie. d'accord parce que lii dal sa morom ëllëg ci yow lay dal. d'accord mais ñun bi ñu koy wax comme ça les gens commencé. duñu dégguñu leen woon dégguñu ñu woon. d'accord mais Khalifa Sall c'est un visionnaire c'est un grand leader donc il avait perçu tout ça donc ñun en tant que Taxawu Sénégal nous ne pouvons pas accepter et comprendre. li nga xam ne ñu ngi koy teg ci opposants yi. d'accord c'est important euh, junj nga ko booloo. taxawal jëmmal opposition fit lañ daal di taxawal ñoom ñi ci bari ci kujje gi mais gisuñu ci taxaw Sénégal gisuñu ci parti démocratique sénégalais est-ce que jàpp nga ni mooy option bu baax bi bu fekkee ni opposition bi war nañ dajaloo. fit ci nit lay nekk du lu ñuy décréter rek fit jëfin la da gis nit mu jëf walla mu wax nga ne kii am na fit waaye doo dem ci jàkka ji walla ci eglise bi nodd naan fit. donc fit ñi taxawal j'ai pas de problème ak ñoom mais ñun tey li ñu ñor xalifa Khalifa Sall gëm naa ni mi ngi ci na mu defoon ba taxawal yeewi askan wi lañu koy wax na ko def ba taxawal lu mel ni kuréel gu mel ni FRTE maanaam kuréel gu rëy gu yaatu goo xam ni ña nga xam ni ñooy ŋànk opposition bi te élection yu transparente libre démocratique sincère war a am ci réew mi ñu taxawul kuréel gu. yéen a ngi ci. ci loolu ñu ngi ci xalifa Sall mu ngi ci liggéey ndax euh, gis nga boo xoolee ni yaa ngi am fit nga ni taxawul senegal nekku ci nga ni PDS bu Karim Wade nekku ci nga ni nga ni ñu bari nekkuñu ci mais day mel ni day am nu ñuy tàmm ak ñu ñu tam tam na. est loolu nga jàpp dafa am ñu ñu tam non dafa mel ni laa wax dafa mel ni waxuma loolu moo am parce que man ma lu bari ci fit mais. nit ñi dañ may wax am naa fit gëm naa ni am naa fit mais fit bi ma am so du ma tax a def loo nga xam ni du joon fit bu ànd xel la. d'accord fit boo ko amee te xel lalu ko aussi. du la jëmale ci ci ci yoonu baax. d'accord mottali yéene ngeen woote di yéene ngi bu wër euh, bërëb yi itam di saytu comme ni nga ko waxee ay xool jafe-jafe yi xool la nga xam ni programme bi ci naka ngeen ko mën war a mën a tënkee askan wi war nga mën a gis seen bopp yaakaar naa ne bu mujj ba su ma jumul Kaffrine la wala Fatick mooy bu mujj bi. yéen a ngi fan. actuellement ma nuyu les doyens les pionniers du parti socialiste. tey ak suba dañu amal lël bu mag ñu wax les anciennes jeunesse socialistes ñoo ngi xam bañ cee toll du ndaw nekkoon jeunesse socialiste tënk woon ci vertu ci idéologie ci valeur ci politique au sens noble du terme tey jii ñoo aaye ñoo wootee kuréel gu mag dem def assemblée générale tey ñu fas yéene def euh, conférence kii premier ci nag. fàttali jaar jaar yi quoi. oui premier ci nag ñëpp ñi nga xam ne Sénégal ñor na leen démocratie ñor na leen socialisme scientifique ñor na leen parce que ñun ay socialiste lañu ñu jagleel ko sargale ci Khalifa Ababacar Sall ñu koy amalee ci piscine olympique mais loolu leçon de ville la parcours du combattant la. pour ñu jëlee ci jànge si hmm. parce que damay gis ni les parti politiques de plus en plus dañu bàyyi seen la doon seen force dem muy les écoles du parti muy l'idéologie du parti muy les orientations le statut du parti les règlements intérieurs yooyu fi ñu toll amatul da ngay jóg rek dugg ci langue politique bi lu la neex wax lu la neex def te tegoo ko fenn alors que un parti politique dafa am fu mu jóge am fu mu jëm mais bu fekkee jànguloo ko. Mhm. mënoo ko tëri. mais appel yi ngeen di def ci endroit l'endroit du parti socialiste dafa mel ni dégguñu leen de. non c'est pas le parti socialiste en tant que tel qui importe pour nous. d'accord mais c'est les militants du parti socialiste. ah ñoom ngeen di. le parti n'est rien sans ces militants là. je veux pas dugg ci débat wu parti socialiste. Mhm. mais je pense que les vrais socialistes dégg nañu. dégg nañu. mais aussi dëggal nañ ñu aussi et am nañu yéene ànd ak ñun aussi et daañu ànd ak ñoom pour véritablement ñu remémorer que l'idéologie de Senghor l'idéologie de Abdou Diouf l'idéologie du socialisme bi nga xam ne l'humain est au cœur de tout cette idéologie-là avec Khalifa Sall qu'on puisse réaliser ça en 2024 Khalifa Sall président en 2024 lu ma a nekk na lu war a nekk la sax ndax bu ma xoolee tey ñiy xëccoo réew mi yëpp waxuma kenn mais ki xam lay waxal Khalifa Sall est un homme juste Khalifa Sall est un homme qui a un parcours qui a une trajectoire Khalifa Sall son profil aussi bas c'est un homme généreux c'est un homme qui partage c'est un homme que réew mi rekk ko ñor ak naka la ñuy def ba waa réew mi mën dund ci réew mi tedd ci réew mi toog ci réew nekk naa ak moom ay at liggéey naa ak moom ay at c'est un homme juste c'est un homme de vérité c'est un homme modeste c'est un homme sincère mais ku mel noonu la ñu soxla ci jiitu réew c'est un homme aussi qui œuvre pour la paix et la stabilité de ce pays donc la rédemption de notre pays c'est avec l'élection de Khalifa sal comme président en février 2024 mais ñuy wax parrainage déjà xëy na boucler ngeen wala pare ngeen lim ba moom mat na. xam nga bu ñu koy wax. ci koo xam bu yemoon sax yi mun ngeen. mais si ça xam nga en deux mille dix neuf Khalifa Sall mi ngi woon ci nattu bi et on a réussi haut la main le parrainage grâce à une équipe et qui avait comme capitaine comme leader feu Idrissa Diallo. yal yàlla ko yàlla. Dalifor xaaral àjjana Dalifor un militant émérite aussi. un homme engagé un homme de vertu et de valeur un homme désintéressé un homme pour la bonne cause mais aujourd'hui Idriss certes est parti mais entre-temps Khalifa a retrouvé la liberté et on a nommé quelqu'un d'autre qui est aussi valeureux que Idriss Diallo qui s'appelle Saliou Sarr qui a une bonne équipe l'équipe est restée les jeunes sont restés on est en train de faire un excellent travail au niveau du parrainage ndegam dañu réussir woon en le parrainage au moment où Khalifa était en détention aujourd'hui qu'il est en liberté et qu'il est en train de faire le tour du pays dans le cadre du Mottali Yéné à convaincre les uns et les autres donc lu ñu mënoon on peut multiplier ça par dix ou par cent c'est important on a réussi le parrainage depuis longtemps ce n'est que des formalités pour nous Cheikh Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ginnaaw ba nga wuy see suñu invitation ci émission gox bi ni ki tey ñu ngi lay sant ñun si suñu wàllu bopp di la gërëm bu baax itam ci sa disponibilité Bemba man maa ngi lay sant di la gërëm parce que j'ai vu en vous vraiment un homme pondéré un homme calme un homme sérieux un homme serviable aussi disponible et je voudrais à travers ta personne saluer toute la maison saluer le directeur saluer tout le peuple sénégalais et wax leen ni nañu taxaw tem nu ñu ràññee aussi dëgg ak fen lu dul dëgg du dëgg nañu xam fu dëgg nekk ñu wuti ko nañu xool fu dëgg nekk ñi ànd ak ñi bëgg dëgg ak ñi bëgg jàmm ak salaam Khalifa Sall c'est notre leader c'est notre candidat c'est notre futur président. yal na ko yàlla def c'est important Cheikh Gueye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax gërëm Malick Faye moom mi nga xam ne moo nekkoon ci xarale gi ak Mbaye Mbeng euh, Léopold Mendy moo nekkoon ci rajo bi jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité fii ci Rewmi TV. ah xanaa bu ñu leen falee nag sañ leen a càmbar loolu mooy observatoire. suñu baat yiñ leen dénk moo waral ñu am sañ-sañu saytu waaye ana maara ko wax yow dox ak sa gox waaw fu ngeen ànd jëm ba république des citoyens fa démocratie gën a am jëm lépp jóge ci askan wi dellu ci moom di li ñu gëm njiit yu fonk askan wi dogu ci ay bëgg-bëggam doon ay royukaay am lu ñuy jomb tey jubal ndénkaane bu amul saytu dafay yomb ci luubal ñu doon citoyen modèle ngir ñu gox bi di suñu yitte nangoo jëmbat buy bi naam ñu fekkee fiñ koy wittee xam suñuy wareef ràññee suñuy priorité fexe naatal ëllëg ñëpp xéew li ni lépp li nga am ngay joxe fexe nu sa fa tëgg ne la nangu dara di fa sooxe saytu jëlee fi laissé aller dox ak sa gox jógal dox ak sa gox wareefu bépp sénégalais dox ak sa gox jógal dox ak sa gox di man di yow di kii di ak sa gox jógal dox ak sa gox